ñuy rappelé ni waxtaan wu ñu seqoon ak le ministre euh, au niveau de la présidence fonction publique fekke woon na ko solde fekke woon na ko te lépp li nga xamante ni waroon nañ ko indi ci information indi woon nañ ko loolu nag dañu gis ni dilatoire la te ñun duñu nangu dilatoire léegi nag li ñu décidé mooy taral xeex bi yokk ko baral ko ndaxte Amadou Ba mi nga xamante ni moom fi mu toll nii ba tey mooy le premier ministre du Sénégal bu ñu mënta recevoir jàpp nañ ni en tant que candidat dinañu recevoir ndax té tay décider nañ ni ñëpp ñi nga xamanté ni seen candidature validé nañ ko ñun dinañ leen saisir officiellement pour séq ak ñoom waxtaan pour ñu jël ay engagement ferme ñi nga xamanté ne nag mën nañ jël ay engagement ferme ci ni ñoom dinañ taxaw ci suñuy jafe-jafe ñun tamit en tant que sénégalais en tant que électeur dinañ am taxawaay bu ñuy taxaw ci élection yi loolu daal la ñu jël décision tey boole ci nag dinañ paralyser l'administration les syndicats yi nekk yëpp ci déposé des ay préavis de grève Et le 8 février nous avons ñu mën grève grève générale la grève générale bi 22 ministères Les 22 ministères secteur primaire donc boo ko jëlee ñëpp xam nañ ni bu sénégalaise dina gàllankoor leneen li ci ëpp solo tamit chauffeurs matériel électoral bi nga xamante ne ñoo koy acheminé boobu tamit nañ ko bloqué.